sayyidina wa mawlaana muhammadin al-amiin wa calaa aalihi wa saxaabatihi al-ghurri al-mayaamiin wa calaa xayri xadiimihi dil xabli al-matiin wa calaa man iqtafaa aathaarahum ilaa yawmi ddiin mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal al Cheikhul Xadim noo leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di ñaan Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñ boom dolli koo fànn ko gu wér dafa ko ndimbala tawfiq ba mu àggaleem ay naalam ak yéeneem di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gépp di ko ñaanal suñ bopp nañ bi Sëriñ Tuubaa yëpp eh, nu dikkaat tey di fukki fan ak ñeent ci weeru koor gi 1441 fii ci seen télévision Lamp Fall ci seen émission Fardul Hayni bi nu baaxoo ànd ak yéen bis bu nekk ci koor gi ci waxtu wi seen mbokk sëriñ Mor Mbàkke di ko taxawe démb ni nga wax ne yéen ni nga mujjoon ak yéen ci jullik aji tawat mooy ku wére di naka lay jullee waaye yooyu ñu doon leeral nag jullik farata moo tax ñuy wax ci la ñuy wax ne kon ki ki wére na taxaw temm su ko telee taxaw wéeru su ko tëlee toog temm su ko wala toog jonn su ko tëlee toog wéeru su ko tëlee tëddee ndeyjoor su ko tëlee tëddee càmmoñ su ko tëlee jaaxaan bu dee ñeentee ñu ne toftale ko daa war bu dee ñeent yi toftale ko dañ koo sopp waaye warut yii yépp nag jullik farataa tax ñuy wax waaye jullig naafila moom nit ki mën naa mën a taxaw ba noppi nag bàyyi ko fa gàpporo te du tey julli gi wér waaye nag ki mën a taxaw su gàpparoo lañuy ñuy fay ko taxaw genn wàll koy fay maanaam ki tiyaabay ki taxaw xaajam la ñuy fay ki gàpparo te mënoon a taxaw ci fi la kon sañ na ko jam mooy mi ngi aju ci mooy julli gi dana wér rek waaye dana wàññi ab yoolam nag lu dul nag wérit da ko waral mooy mooy ni tànk metti xewe nga xam ne julli farata gi moom dana góorgóorlu ba julli ko ci tànk yu metti yi doon day mu gàpparu ko ngir tànk yu metti dana am dana am yool maa des wàññi yoolam ngir loola ku wàpp nag bu mënta jóg may nañ ko mu tiim ci miir bi mu dendal su fekkee day miirub ban buñ raaxut teyit penturuñ ko kon ni ma ko waxoon ca émission yee weesu te fekk daa gisul ko mën a wutal suuf su mën a tiime kon loolu moo aju ci jullig aji tawat ñëw nag ci jullig fayfaat fayfaat mooy ki ak julli raw nan nga koy faye waaye ni nga fay julli yoo faat julli yoo faat noo koy faye fay julli nag ci sàgg ci farlu la bokk ab julli wërta sàggan sàggan mooy am julli yu bari yoo faat ba noppi nag daa defoo sa jënd yi te jëm ko fay sàgg te sàggan sax moo tax nga faat ko boo demee ab jullit warta sàggan ab jullit dafa dafa war a farlu farlu ci màndargay jullit la la bokk ku faat julli yu bare bare bare ba xamul lam faat nam toll ngir bari ngir ngirug bari lu tax mu wàcc ko de day fay day fay di fay di fay ba mu wóor ko ne dana mat moom danga xam ne fi ne moom xanaa ëpp la ñuy wax waaye waaye yeesutut moom mu door a bàyyi su ko defee na nga koy defe mooy day fexe ba bis bu nekk mu fay juróomi bis doonaa joxe misaal ci émission yay weesu <coughs> am na ñaari anam anam gu njëkk mooy su jullee suba ba noppi day fay genn suba fay genn tisbaar fay genn takkusaan fay genn timis fay genn gee su jullee tisbaar gi teew daal di suba fayug tisbaar fayug timis takusaan fayug timis fayug gee booy julli takusaan su jël takusaan gi teew daal di fayaatug suba <coughs> fayaatug tisbaar fayaatug timis fayaatug gee timis jot mu julli timis daal di fayaatug suba fayug tisbaar fayug timis eh, takusaan fayug timis fayug gee dem ba julli gee ba del defar noonu mooy fayaatug suba ak tisbaar ak saa ak timis ak gee su ko defee muy juróomi fan loolu maa anam gu njëkk gi wala boog anam ñaar gi mooy su jullee suba fay juróomi suba bàyyi ba julli tisbaar fay juróomi tisbaar bàyyi ba julli takkusaan fay juróomi takkusaan julli timis def noonu julli gee def noona su ko defee muy juróomi bis su ko defee ñaari fan fay na fukki bis su ko defee juróom benni fan fay na weer muy fan weeri fan xam nga la boo ko defee weer rek ñaata weer nga ñaata weer nga fay kon juróomi fan yu ne weer la fukki fan yeeg ñaar di ñaari weer fukki fan yeeg juróom ñett di ñetti weer ñaar fukki fan yeeg ñaar di ñeenti weer ñaar fan yee juróom-ñett di juróomi weer nga xam ne kon soo amee weer rek soo defee noonu weer fay nga juróomi weer loolu su fekkonte ne ay at nga faat ay julli maanaam ñaari weer mbaa ñetti di diir bu néew nga koy def sa maanaam fay fay fayu julli yëpp mat sëkk loolu la suñu tubaab di jàngale ci jawhar nafis ne kuy def julli bis bu nekk bis set mu fay juróomi bés kooku bokkut ci way sàggan waaye ci way farlu yi la bokk ci lañ koy limaale waaye buy fay nag yu ñu tuddee néewi faat da koy toftale néewi faat mooy juróomi julli mbaa lu ko yées may dangaa faat tis dangaa faat suba ci da dangaa faat suba faat tisbaar faat takkusaan faat timis bagee sañoo julli gee te fa yooyooye ba noppi kon faaw dangay fay suba fay tisbaar fay tàkkusaan fay timis dooru julli gee mu teew su fekkee mat na juróomi julli nag jëm kaw léegi ëpp néewi faat kon su julli suba teewee dangaa faat suba ba suba ñëwaat kon sañ ngaa njëkk a fay suba ba noppi door a fay nag ya ya faat waaye boo ko fee da nga koy toftale mooy da ngay njëkk a fay suba ak démb tekki tisbaar déemu takkusaan timis nam tegaloo ba mat ba geex kon yooyu eh, da dafa bokk ci mata xam kon fay néewi fan ba lu ko yées kon mbaa néewi fan ba lu ko yées dañ koy toftale dañ koy toftale waaye bu fekkee ne lu ko ëpp la nag moom sartu duñ ko ca donte sax gi teew xam nga ne bala nga koo fay ba noppi waxtu weesu bala ngaa fay weesu waxtu weesu lu tee da ngay jëkk a fay weesu ba noppi door julli gi te li fekk mi ngi doon néew yu faat rek parce que fekkee ëpp néew yu faat nag ni ma ko waxoon léegi sañ ngaa fekkee ragal nga gii nga gi gii teew waxtoom waxtoom weesu mën nga ko njëkk julli kon door a fay ya weesu jox naa ci ay misaal léegi kon buy fay ba jiitu lay njëkk a fay toftale ko nam nam xëy woon ca melaw melaw dëggantaan wax bu dee kuñ daaw ci biiru julli nag julli suba su fekkee benn rakkaa dala caa raw ña nga fekk imaam ruko ba siggi ba ne ca Eh, ba ba ba ba tàbbi ca nga xam daal tàbbi na ca rakkab ñaareelam rakkab njëkk fasu na nga ñëw ànd ak imaam kon rakkab njëkk ba faat na la su imaam sëmbalee da ngay jug soo jug na doo wax allahu akbar da nga naan ñokket rek tàmbale fa tàmbale jàng faatiha ko saar soo ñokket alhamdulillahi rabbil alamin jàng faatiha teg ca saar te biiral ko te doo xunóot nag imaam ji yóbbaale na la ndax rakkam ñaari ci lañuy ci lañuy xunóot te fekk nga rakkam ñaareel donte xunóot ba raw na la maanaam imaam rukkoo na nga doon ñëw ànd ak mu rukkoo ba it teewul imaam yóbbaale la ci xunóot ba moo tax doo doo xunóot ndax yow rakkam njëkk ma nga fekk rakkam njëkk des ci xunóot da ngay mot rakkam di nag sëlmal toog toog taay sëlmal mu jaax su dee jullik tisbaar suñ la ca rawee benn rakka fekk nga ñetti rakka yépp rakka bu njëkk bi moo bi moo la raw rakka bu njëkk bi da moo la raw si imaam sëmmali da danga naan ñokket doo wax allahu akbar da nga ñokket rek tàmbali jàng fatiha ko saar yàllu ko rukon sujjóot toog taaye sëlmal su la ci imaam rawee ñaari rakka ci tisbaar ba tey fekk nga ñaar ñaar raw la su imaam sëlmalee da ngay jub ne allahu akbar nan la ñuy xàmmee fi ngay wax allahu akbar ak fi nga ko dul waxee mooy fépp fa la imaam toog la foo xam ne waroo fa woon a toog rek foo xam ne soo duñ jur yow dong doo fa toog imaam toog loola fa foofu soo fa toogee soo jóg doo wax allahu akbar xam nga bu dee julli suba rakkaa bu mujj ba nga fekkee ànd ca yow mooy sa rakkaa bu njëkk kon sa rakkaa bu njëkk soo doon julli yow dong doo ca toog imaam doo caa toog loo moo tax ba imaam sama lay boo jóg wax wax wax la ko da nga naan da nga naan tari tisbaar ba nga ca amee ñett rakkaa fekke fekke ba nga ca amee ñett raw la kon sa bi imam di toog di taay yaa ngi ci sa ñetteelu rakka sa ñetteelu rakka sa doon julli yow doo nga doo ca toog imaam dafa toog loo kon bi imaam sëmmalee soo jug doo wax Allaahu ñaar rakka nag ci tisbaar xam nga ñaar rakka moom bu doon yow doo ngi booy jul da fay toog fa nga toog moo tax kon bi nga seel imaam bi la imaam rawee ñaar rakka nga toog mu toog di taaya te bu doon sa yooyu da toog bu doon yow doo ngi da toog eh, mu toog taaya sëlmal booy jug da nga naan Allaahu akbar kon loolu ngay xàmmee fi ngay wax làkk boobu booy jóg ak fi nga ko dut waxee fépp fu ñu la toog la te waru foon a toog sooy jóg doo wax allahu akbar fi fépp foo xam ne soo julli yow doo ngi da nga fay toog suñ la fa toogloo sooy jóg da nga kon su li imaam rawee ñaari rakka kon ci sax da nga naan allahu akbar jàng faatiha ko saar yàllu ko ndax rakka bu njëkk ba ngay ñi ko fay daa ko rukon su jot jugaat jàngaat faatiha ko saar mooy rakka ñaareel ba yàlloo ko rukon sujjóot toog taay sëlmal mu jeex su dee nag ñetti rakkal la ci imam ree ci julli tisbaar ba tey kon benn nga fekke bu mujj ba képp nga fekke imam sëlmal danga nga naan ñokket te doo wax allahu akbar toujours nag buñ la ree booy jug ba njëkk ba njëkk ngay njëkk fay teke ba ca topp kon rakka bu njëkkub imaam ngay njëkk fay kon faatiha ko saar nga ci moom la ca jàngoon yàllu ko ruko sujjóot toog lu tax ngay toog mooy sa ñaareel taay di ne woon ñokket jàngat faatiha ko saar mooy rakkam ñaareelu imaam ba loolu la jàngat ko ruko sujjóot doo fa toog de ndax sa ñetteel la ndax imaam ñaareelam la dafa toogoon moom jàng faatiha dong yalu ko rukkoo sujjóot toog tàyyi sëlmal kon bu la ca ñett rakkaara yu noonu la àtteeb tisaan mooy àtteeb tàkkusaan ci kuñ raw xarfan bi xarfin kuñ raw ci tisbaar bu dee benn rakka bu dee ñaar bu dee ñett àtte boobu mooy ci tàkkusaan moo tax kon bu ñu waxee eh, tisbaar waxaale nañ takkusaan timis su fekkente ab rakk dala caa raw ñaar rakka yu mujj nga fekke bu njëkk ba raw la su imam sëlmalee danga naan ñokket wax allahu akbar ndax ñaar nga fekke ñaar bu doon yor dongi da fay toog nga ne ñokket ne allahu akbar jàng faatiha ko sar biral ko toog taaye sëlmal ku ñu ci timis sa timis jëpp toog la timis jëpp taaye la fekkee ñaaral raw nag mooy benn rek nga fekke baka mooy raka imaam bu mujj ba nga fekkee su imaam sëlmalee da nga naan ñokket doo wax allahu akbar da nga ñokket a jàng fatiha ko saat biral ko toog taayam wax ndax mooy sa ñaareel jógaat jàng fatiha ko saat biralaat ko toogaat taaye sëlmal kon timis lu ñu lay trawee muy benn muy ñaar bu ci nekk sa sa timis jépp toog la bu deegee lu ko wutalee tisbaar takkusaan mooy biral ak yàllu rek biral ga ak yàllu ga kon su la benn rakka rawee ci gee su imaam sëlmalee neel ñokket doo wax ko jàng fatiha saar biral ko toog tay sëlmal su la ci ñaar rawee su imaam sëlmalee neel ñokket ne allahu akbar jàng fatiha ko sat biral ko rukon ko sat biral su la ci saar rukon sujjóot toog tàyyi ndax ma si ñaareel soo tàyyi nga jógaat jàng jàngaat ko sat biral ko ñëw sujjóot doo fa toog jàngat fatiha dong cig yàllu ruko sujjóot toog tàyyi sëlmal mu jaax su ko defee kon noonu lañ koy defee ku yori bor nag ku yor bor yu julli yu mu fa yëgut tere nañ ko naafila naafila weeru koor yii muy taraawiix yi du ko def lam naara naafila na ko fay julli farataam ndax naafila du farataam lu ñu sopp dong la desul bàyyi fàtt def lu ñu sopp kon lam naara def fukki rakk ak ñaar ci lu ko warut na ko fay julli farata yu ko waroon su ko defee eh, julli yoor yoor it dañ ko koy tare ak yu ni mel may nañ ko nag safaak witar ak ñaari iid yi ak lu mel ni muuru jant ak ak ak muur gu weer ak ak julli mbaaw yooyu mën na ko julli ak julli fajar naafile gu dul yii nag moom dañ ko koy tere ba keroog muy fay ay naafilam fay ay farataam bu noppi yooyu nag bu ci nekk instant buñ ca àgg dañ la ko leeral yiñ tudd taxamoo ko muy jullig muuru jant jullig muuru weer jullig mbaaw luñ ca àgg rek ndax lu ci nekk yëfi boppam la suñ ci àgg dañ ko leeral incha allah mooy lan ak nañ koy defee kon loolu mooy li aju ci fay bori julli ak fay lu la faat ci julli mooy la ci imaam mooy julli yoo faat julli woo ko war ko fay ak soo indi imaam la raw ci rakka nga war ko fay leeral nañ ko defe naa leer na ñëw nag ci buntu jamut ci julli jamut ci julli mooy juum ci julli ki jamut nan la ko defare moo xam daa yokk moo xam daa wàññi moo xam daa boole yokk ak wàññi lu ci nekk am na lu ca war luñ ci doon nag lañ ko def rek mooy ñaari sujjóot ñaari sujjóot yi ñu koy sujjóote sunna la su dee ki yokk ci julli gi mooy julli gi daa ëpp ñeent rakk nga faroon julli nga bëgg far far julli juróom mbaa dangaa juum sujjóot ñetti sujjóot ci benn rakkaa mbaa jàng faatiha ñaari yoon mbaa yun mel daal xam ne njuumte la loolu lañuy tuddee baax lu tax baxda mooy baatu arab ci baatu arab ci baxda mooy gannaaw gannaaw kon li tax ñu tudd ko baxda mooy gannaaw julli gi lañ koy lañ koy lañ koy lañ koy lañ koy sujjóotal mooy boo jullee ba sëlmal da ngay sujjootaat ñaari sujjoot taayawaat sëlmalaat su fekkee da ngaa boole dool dolleeg wàññi ba tey noonu asafala eh, eh, bu fekkee loolu mooy dolli bu fekkee da wàññi nag dangaa ngaa wàññi mooy da ngaa fàtte jàngu saar ci rakka mooy rakka ñaari da nga caa fàtte jàngu saar ba far ko weesu mooy da ngaa fàtte taay digg bi nga amee ñaar waroon toog taaya fàtte ko jug. kon da nga koy sujjootal xabla xabla aji njëkk lay tekk lu jiitu kon liñ koy sëlmal lu jiitu liñ koy eh, sujjoot lu jiitu sëlmal moo ñu tuddee ko xab la salaam lay sax mooy jiitu sëlmal baax da salaam mooy gannaawu sëlmal kon soo jullee ba julli gi jaax ba taaya nga ba sëlmal des ya bal ngaa sëlmal nga sujjootaat ñaari sujjoot taayawaat baa mu taay ji door a sëlmal loolu xab la salaam soo boolee dollee wàññi ba tey ba tey xabla ngay sujjóot wàññi nga ci julli gi dolli nga ci kon yooyu mooy mooy mooy mooy mooy sujjóot sujjóotu wàññi kon eh, lu jiitu sëlmal bi nga koy sujjóot sujjóotu dolli nag gannaaw sëlmalu farata bi lañ koy sujjóot soo ko sa soo ko si sujjootee nag bu la neexee baamtaay ji bu la neexee ba nga ko bu la neexee sigir sigir toog ne asalaamaaleykum dootee dana wér baax da ba soo soo nga sujjoot ñaar sujjoot sigir toog ne asalaamaaleykum waaye baamtaay jaa gën nag xab la it bu la neexee bu sujjoot ñaar sujjoot ba sigir nga ne asalaamaaleykum bay baamtaay ji it am doo war a sori doy na fa nga yam jur jur ngay ngay ngay jàng taay taay taay ju mujj maa ñaari taay yëpp ni ko noonu koo xam dafa fàtte nag su xab la am na fu ma ko junj ci fan yi weesu def nga li waral xab la fàtte ko fàtt maanaa war a war a sujjóot fàtte ko ba sëlmal danga koy sujjóot rek kon ci maax naa baax dala ndax gannaaw sëlmal la waaye nag ab xab la ngay fay moo tax xab la la ndax xab la nga yéene da nga ko war a sujjool laata sama nga war a sujjoot fàtt fàtte ko ba sëmbal daal ko fàttali ko daal ko sujjoot fekkee dafa yàgg nga door ko fàttali ko nag mooy fekkee jàkkale génn nga jàkk ja mbaa daal yàgg bu jàkk ja yàgg na su fekkee la laa taxoon di sujjoot xab la mat na ñetti sunna maa dangaa bàyyi lu man ñetti kon su boobaa nag julli yàqoon na da ngay julliwaat su fekkee la nga bàyyoon ba tax lay sujjoot xab la nag day si misaal matul ñetti sunna day benn sunna rek wal ñaari sunna yooyu da fàtte benn ak benn ak benn alak ak benn sami àla rek ci misaal fàtte ko ba mu yàgg mu yàgg nga door ko fàttaliku julli gi wér na sujjóot ba wàcc na la may dara waratule rek loolu lu xaw a lu xaw a jan la loo xam ne mat naa mat naa bàyyi xel nga xaw jaxasoo ku fàtte baxda nag am baxda salaam koo ko fàtte donte dangaa toog lu mat at door ko fàttali ko danga ko danga koy sujjóot baxda moom du fàtt toog nga di ah, daaw bu ma demee poroxaan bi sàngam waroon amoon na ma sujjóot dama ko fàtte maagal poroxaan delsi na fa ko fàttali rek dangay daal di armal daal di sujjóot sujjóot baxda ba doon ne ko ci julli maanaam fa nga fa mu fekk daal di daal di war ngees jëm xibla rek daal di armal daal di sujjóot ñaar sujjóot ne asalaamaaleykum mu jeex kon sujjóotu baxda du du du faat ci fàtte ak lu mu yàgg yàgg nag. nu ko nee ku bàyyi ab farata bu mu ko sujjóot farata dees ko sujjóot farata sujjóot mënu ko defar farata moom da indi farata ba rek. rakka bii danga cee fàtte ab ruko ba dem ci rakkaam ñaareel ba ma rakka mu njëkk ci nga fàtte ko ba dem ci rakka ñaar doo ko fàttali ko kon jàppoon rakka bu njëkk boobu baaxatut kon rakka bu ñaareel bi jàpp ko muy sa rakka bu njëkk kon léegi folli nga bu njëkk ba yaa ngi ci julli gi doo ko dagg waaye jàppal ne bu ñaareel bi ne léegi mooy sa bu njëkk nga jàng Faatiha ko saar ruko sujjóot bañ a toog kon gannaaw moo nga jàng bi jëkkoon doo fa toog kon na ngay jugaat indiwaat faat benn rakka fatiha ko saar toog taaya boo sëmmalee nag kon mel na li nga rakka bi lëm kon danga sujjóot ba'da salaam kon fàtte euh, euh, farata mu indi farata ba waaye sujjóot mënu ko defar am nga ne lu ko ko fàtt deesu farat dafa diis ba sujjóot mënu koo defar nga ne dafa woyof a woyof ba jëlul sujjóot kon sunna rekk la ñuy sujjóotal ci julli sunna moom la ñu sujjotal ci julli sunna it su dee benn sunna dee su ko sujjotal da bàyyi benn allah koor ci julli gi jëru sujjotal loolu nag mu doon biral ak yàlla biral ak yàlla mu dafa feddali ko moo tax donte benn sëlma la benn benn sunna la da ngaa bàyyi da nga waroon biral bàyyi ko ndax feddali ko moo tax da ko sujjotal da ngaa waroon yaru fàtte ko mooy dem daa fetlu ko moo tax da nga koy sujjootal yooyu rek mooy benn sujjo yi nga xam ne benn sunna la da nga koy wala wala da ngaa fàtte taaya taaya mooy dafa waaye taaya sax ko fàtte daa mel na fa bàyyi nga ñaari sunna ndax taaya ak jotaay lépp sunna la boo bàyyi taaya kon bàyyi nga sunna bàyyi toog bàyyi nga taaya bàyyi nga toogaayu taaya kon bàyyi nga ñaari sunna su fekkee biral nga bàyyi baax na koy sujjo su dee su dee yàlla nga bàyyi na xab la su dee biral nga bàyyi dangaa waroon biral timis fàtte ko yalu kon dangaa wàññi xab la ngay sujjóot tisbaar danga ko war a yalu fàtte ko biral kon dangaa yokk kon baax na sujjóot kon soo biralee foo war a sujjóot foo war a yalu dangay sujjóot baax da soo yaloo foo war a biral da sujjóot xab la noonu la ku wax ci biir julli te jum waral ko na si yot baax da e eh, may ma ndox daa fàttali ah man kat ci julli laa nekk àggalil julli nga sono bi nga si jot baax da ca baat boobu nga wax képp ku sëlmal ci ñaari rakkaa it tawa doon ñett mbaa ñeent dangay julli timis mbaa geneen julli am ñaar rakka juum sëlmal ñu ne la subhanallah da nga dagga ju kàbbaraat indi rakka ba des su jot baax da lu tax baxadam mooy dangaa yokk mooy julli gi am na ñaari ñaari sëlmal mooy sël nga mën ñaari yoon moo tax kon dangaa dolli da nga sujjóot salaam kon su mottali da sujjóot baxda ku jum ba dolli ñaari rakkaa it ci julli mbaa benn te du suba te du te du julli suba baxda moo ko jagal ay julli tisbaar far jum julli juróomi rakka mbaa juróom benn rakka ngir njumte mooy da nga koy sujjootal baax da rek moo ca war loolu la bunt la bu yaatu incha allah buñ delsee delsi ci gën cee yaatal incha allah kon su ko dee ñu ñëw yéen nag ci euh, ñaanuk bis bi tey ñaar la guñ guñ guñ guñ toxale ci daf bokk ci ñaani istixfaar yi maanaam ñaani jéggalu yi jéggalu suñu borom soo bëggee yàlla jéggal la ñaan yi nga ñaan allahumma agfir li danbi wa wassi li fi daari wa barik li fi rizqi ñaan ko ñu ko jëli ci yoonu saa salaam tirmisi yi moo solo allahumma agfir li danbi wa wassi li fii daari wa baarik li fii risqi mooy yow sun borom yàlla na nga ma jéggal sama bakkaar yàlla na nga ma yaatalal ci sama biir kër yàlla na nga yàlla na ma barkeel ci sama wërsëg ñaan la gu mat di ñaan xadiisu bis bi bu gàtt la mooy ahabul amali ilallaahi adawamuha wa in rawaahu an aysa rawaahu cheykhaan ahabul amali ilallaahi adwaamuhaa wa in qalla salaasu nee na jëf ji gën ci jëf yi mooy jëf ci gën a sax donte néew na jënn jëf joo saxal lum néew néew néew moo gën mooy moo gën cuut yàpp cuut yàpp mooy tey nga def lii ëllëg nga def lee tey jàng alxuraan nga xewal ëllëg bàyyi nga ko yaa ngi ci nafila ëllëg bàyyi nga ko léegi yaa ngi ci leneen may jël leen loo saxal donte neenu moo gën foofu loo bari loo xam ne saxaloo ko xaay xaayisa moo ko solo jële ko ci ash-shaykhaan ash-shaykhaan mooy ak Muslim kon foofu lañu teg suñu baaram ba suba jàmm jéggul leen baax a baax baal leen xaq baal leen xaq ñaan li gën ci noonu yàlla na ko suñu bon defal dëppale ko li nu gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa